fii ñu nekk nag mooy Casablanca si mosquée Hassan II am mbégte lool nag di leen annoncé seen émission diine bi ngeen xamante ne moom lañu ñu duppee islam émission bi nag chaque mois dinañ ko amal dinañ ci dalal ay borom xam-xam yu màcc ci wàllu diine waaye tamit dinañ ci def ay reportage fësal lépp li nga xamante ne mooy xew-xewu diine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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu suñu mbokki jullit yëpp uh, di nuyu tamit suñu mbokku Sénégal yëpp di leen delloo seen nuyoo ak uh, ziar. sëñ bi dañ doon bëggoon xam rek yow naka nga uh, bokkee nga xamante ne mooy Serigne Touba Xaadimu Rasul. waaw man maa ngi tudd Mouhamadou Aras Mbacke mm-hmm. Serigne Fallou Mbacke Euh, bu sëñ Murtada bu sëñ Touba mooy sama waajur wu góor euh, soxna Mariama Mbacke bintu sëriñ Chouaïbou Mbacke ibnu Xaadimu Rasul mooy sama waajur wu jigéen noonu la ñu sëriñ Touba boole ci ci boppam ñu ko ciy sant bu baax nag. macha allah am na solo ñi la doon buñ la doon laaj tey kan mooy sëriñ Sidy Mokhtar Mbacke lan nga ñuy tontu ci laaj boobu. waaw sëriñ Sidy Mokhtar wax ci moom dina xaw a jafe ci man. Hmm. ci benn côté waaye tamit euh, wax ci moom dina yomb ndax fi muy jafe mooy moom daf ma ma jege lool parce que euh, sama papa la sama waajur la di mag ci sama waajur bu góor hmm. Sëriñ Fàllu nu Cheikh Mahamadul Murtada euh, te yaakaar naa nit ki moom lu ko jege rek wax ci joxe ci ay seede dina dina xaw a jafe wante mm, li tax li tax mu neex a waxtaane mooy jëfam dane dane danay fàng doy na sëkk rek ñu ne euh, Cheikh Cheikh Cheikh euh, Cheikh Sidi Mokhtar euh, ibnu Cheikh Mouhamadul Lamine Baara ibnu Khadim Rasul loolu doy na sëkk présentation waaye ci li ñu jàngat tuuti mu nekk ci li ñuy faral di dégg mooy nekk juróom-ñaareelu doomu sëñ Baara ci li ñuy wax moo nekk juróom-ñaareelu xalif Serigne Touba ñëw yokk jumaay Touba juróom-ñaari soorool dund juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer ak juróom-ñaari fan loolu mm, li muy signifié bari na trop liggéeyam nag ci wàll Touba ñu bari xam nañ ko ndax bu ñu xoolee masalikul jinan gis nañ taxaway bi nga xamne ne am na ko fa parce que bu yagul gisoon nañ milliards yi nga xamne ne won nako na ko ci jumaa yi Masaalikul Jinaan te lepp pour taxawal diine rek moko ko taxawal a jóg nga xool lu melni ni jumaay tuba momit it alal giñ ci dugal lepp pour liggéeyal sëñ tuba ak bir tuba ak dimbali yi nga xamne da daana ko dimbale doomu adama yi loolu yaakaar naa buñ ko toppee danañ ci génn yu bare bare yoo xam ne kenn mënu ko lim daanaka boo xoolee Euh, depuis lu yàgg euh, ci la commencé di at mu jot mu yóbbu lim bu baree bari mu yóbbu leen màkka loolu ñu baree bari daan nañ ci teg seen i bët mhm. buñ dee xool ay jëf yu baax xam daal yaakaar naa danañ ci mën a génne yu baree bari ndax euh, nit ku noppi la woon nit ku nit ku dal la woon ku ku ku ku ku ku simple la woon jëkkoo woon àdduna lool wante wan ko ginnaaw ndax ko musaana fekk Eh, fi mu fi muy toog daanaka da nga naan kii est ce que eh, cër bi mu am est ce que yaloon na toog ci place bi ay mbaari seng ay néegi ñax ak yu mel noonu la daan toog te yori milliard toog place bu sëñ Touba mënoon a doxale nu ko neex waaye teewul mu nekk ku simple ku oyof ku yaatu eh, ku ku ku ku dal foo ko fekk daan jàng alquran néew ku néewoon ay wax la ku néew ay wax daanaka jàmm rek moo ko yëkkati woon boo xoolee آية القرآن بوب موي وخني آه، القرآن دي وخني آه، إنما المؤمنون آه، إخوة فأصلحوا بين أخويكم وتقوا الله لعلكم ترحمون تي لا تيغون تانكام موي دا دون بولي جولي جيب بور ني نيك بن سنغال لولو نيب تاج نين سن بت لي سن توبا دي دون دي وخني فلا تعادوا من رايتم فاه يخرج لا اله الا الله بولين نونو كيب كو خامني غيس نين جيمي نيم دي ген لا اله الا الله موم لولا لولا شيخ سيدي مختار دون دون دوندو اوسي nga gis ne سيغ توبا دي واخنا فكل يرد يريد المريد لحضرة الله ولا اليحيد سواء انتما الى الجيلاني او انتما لاحمد التيجاني او لسواهما من الاخطاء كلهم قطعا على الصواب لولي داكي تكون تانك موي سيغ توبا واخنا تاريخ يي نك تاريخ ييب بوروم تروخ يي nga xamne da yu jëm ci yalla ko ci japp ko ne nang ci wara japp la agri ci yalla sey sir muhtar fofu la tagon tankam réalisé lu bare bari ci ci yoonu murit rawatina ci Sénégal daanaka ay bu ñëw jàmm la cay doxe moom la cay digle kenn mësu ko dégg ci violation mënuñoo wax ci moom daal lu bëri bëri. macha allah sëñ bi euh, li nga wax ci sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke am na solo lool waaye nekk na loo xamante ne adduna bi yëpp moo ko koy seedeel ndax euh, oyofam euh, nekk koo xamante ne ku bëgg diine bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànkam ci foofu rek la ko mën a teg. li mu li mu réalisé ci biir Touba moom kenn kenn kenn mënu ko kenn mënu ko lim allah. Mm-hmm. jërëjëf yàlla ñu koy yàlla fayal jàppale nit ñi dimbale xanaa mm-hmm. di wax ne. ñëpp a ñàkk du du ne murid yee ñàkk waaye jullit yëpp a ñàkk ndax mhm. euh, moom ñëpp la fi nekkaloon dëgg la waaw dafa euh, nekkoon koo xam ne dafay dafa dafa yaataloon boppam ci ci mboolem tarixa yëpp rawatina ci jullit yëpp dëgg la euh, ba tax na xala dañuy xam ne mhm. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek mhm. waxit ne yàlla ñu suñu borom dugal ci xumul muxtadoon ak wa bashiri wa bashiri sabiri sabirin googu yàlla ñu suñu borom dugal amiin amiin dee moom ku ku dal li suñu borom wax uh, yonente bi sallallahu alayhi ko innaka mhm. da ngay faatu mhm. ñii la uh, wa sallam waxin ne al mawtu baabun kullu unaasin daaxiluhu dee buntu la boo xam ne bépp nit uh, kuy dund ko ne dina ci jaar képp ku jigéen sukk jur ku di nga dugg ci biir ci biir bàmmeel maanaam nga di nga tax na sëñ Tuubaa daan wax ne ñetti kull yi nekk ci alxuraan ñoo ma tee bari ay ree ñoo tax du ma du ma mën a békk li ci njëkk mooy kullu man alayha faan wa yabqa ci rabbika dul jalaali wal ikraam léppay jeex ba mu des jëm yàlla kullu nafsin zaa'iqatul mawti ku dee ku dund ku ne di nga dee kullu shay'in halikun ila ba mu des jëm yàlla hmm. comme yaron tabi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci bir souf ndax buñu xolé danaka ñi nek ci bir souf actuellement ñoo gën ñi nek ci ko souf kon yaakaar naa ñun ñëpp ñak ñi ngi ñaan suñu borom ñi nga xamne ñom ñoom ñoo fi des suñu borom dalale suñu xel ci yéen mom fi mu tegoon tànkam moy ay alquran bi bi waxe wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun suñu borom bindul nit ak jinne lu dul ñi jamm ko jamm googu fofu la sey Seydi Muxtaar tegoon tànkam ndax bo xolé foog mu sànni tekk mi ngi jàngal alxuraan wala mu yor kurus ba mu koy man euh, ajjuma daaw ko tardé ñëpp gis nañ ko ku fonkoon aljumaa la donc kon ci wàllu ci wàllu ci wàllu digle ma yàlla ak yonent bi ak sëriñ Tuba mm-hmm. daanaka nag boo xoolee boo ko jàngate yëpp dalay jox ci euh, ay alquran bi wax ne wabtaghi fi ma ataka allahu daara al waaye nag wala tansa nasibaka min ad-dunya euh, na ngay jaamu yàlla waaye nag sa cër ci àddina bul ko bul bul ko bul ko fàtte. mooy da ngaa war di da ngaa war di liggéey ndax foo ko mosaan fekk yaa ngi dégg muy wax ne na na nit ñi dem ci tool yi. Mm-hmm. na nit ñi dem liggéeyi. Mm-hmm. yooyu rek la la daan digle. Mm-hmm. daanaka jaamu yàlla ak liggéey moom ci la nekkoon. li seq ay boobu ab tax fi ma ataka allahu daar al axira min ad dunya ci ay boobu rek la tegoon tànkam. macha allah ni ko sëñ bi waxee rek nekk na koo xamante ne nit ku yaatal boppam euh, yemalewul yemalewul dara ci dara ba pare boole ñëpp amul këru amul kii tijaan la amul kii murit la ñëpp la boole daal di yemale mu nekk loo xamante ne euh, lu am solo dañuy ñaan yàlla rek yàlla nañ ko yàlla fayal. Euh, yegg nañ ci suñu cappaandaw émission bi dañ lay wax rek Mbacke lan ngay lan ngay tëjee. waaw xanaa di ñaanal suñu xalifa bi nga xam ne moom moo fi nekk muy. cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi wéral ko jàppale ko taxawu ko ba moom tamit li mu naal pour liggéeyal ko Serigne Touba mu def ko comme li mu gënale Serigne Touba ndax gis nañu moom ko am yéene la moom tamit ku ubbeeku la ku amul taalibi la ku bëgg doomu aadama yi la te it borom borom xam-xam la am nañ ci moom yaakaar bu baax ñu ngi ñaan suñu borom kattanal ko taxawal ko dëgëral ko ba ñu bëgg a àggale liggéey Serigne Touba yëpp mu àggale ko foofu incha allah rabbi xanaa di euh, ñaanal suñu mbokk jullit yëpp ci ñu gën a nekk benn gën a gën a ànd gën a teg suñu tànk ci sunna si yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam di jaamu yàlla ay tereem mhm. teg suñu tànk ci sunna si yonente bi euh, te tey rafetal suñu diggante mhm. ndax Serigne Touba da daan wax ne bépp jullit boo xam ne boole nga juróom ñeenti mucc àddina ak alaxira mooy ragal yàlla ragal ku ragal yàlla ragal ku ragalut yàlla bàyyi lu bon bàyyi ku bon bàyyi fu bon loo xamul bul ko wax loo mënul bul ko def loo moomul nga maandu ci Sëriñ Tuubaa daana wax ne ñetti daan mos naa toog ba mu yàgg mu ne cëy cëy cëy daal cëy yàlla yàlla mii de ku ko jàpp dana la jàpp ku ko jàppul dana la jàpp kon na ngeen ko jàpp balaa mu leen di jàpp wallaahi daal di wax na cey adduna mii ku ko bàyyi dana la bàyyi ku ko bàyyiwul dana la bàyyi kon na ngeen ko bàyyi balaa mu la di bàyyi daal ne cey bàmmeel mii ku ci def dara dinañ la ci def ku ci deful dara dinañ la ci def kon na ngeen ci def dara balaa ñu leen ci def te Sëriñ Tuubaa nee na doomu aadama bu ne ñaari biir rek la am biiru boppam ak biiru bàmmeelam biiru boppam la cay dem ci wàllu wërsëg yàllaa ko ko yàllaa ko koy gàddul biir bàmmeelam nag lum mu ca deful du ko fekk moo tax may faral di wax ne doomu adama bu ne ñaari compte bee yi nga am muy compte bàmmeel ak compte bancaire compte bàmmeel loo fa deful sa carte visa mënu ko retiré wallaahi sa compte bàmmeel nag loo fa deful it sa gëru du ko fekk moom la suñ tubaab di wax ne tallaahi laysa yanfau laysa yanfau shaxsu hada inda xululi ramsihi gayral huda suñ tubaab nee na giñ naa ci yàlla ne nit ki bu duggee ci biir bàmmeelam amul dara loo ko fay jëriñ lu dul ak njub kon Sëriñ Tuubaa euh, ak njub la jàngale ñun jullit yépp ñu war cee ñu war cee tënku topp sunna si Yonent bi sallallahu alayhi bu baax a baax tey moytoo tooñante ci suñu biir loolu daal xam naa ne mooy kàddu yi nga xam ne bëgg naa ko jotali su fexee tamit ba euh, njiitum réew mu senegal mu gën a am yërmaane ci waa réew mi gën a am yërmande ci ñoom te it euh, euh, yombalal leen lépp loo xam ne réew mi soxla nañ ko loolu tamit lu am solo la. jërëjëf bàyyi bu baax. jërëjëf suñu xalif généraux yi tamit yal na leen yàlla sàmm euh, may leen gudd fan ak wér te jàppale leen tamit ci yéen bi nga xamante ne teg na leen ko waa kay kon xam nañ foofu la ñuy yem ba beneen yoon incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah.